Mm, de sax ñu ci profité di ñaanal baax ñi nga xam ne ñoo war a def BFM euh, ci euh, le 14 bi ñu dëgmal euh, di rek yàggatul dara daanaka ay fan a ci des ngir ñu amal ko ñiy def candidat wala candidat ci examen bu BFM mais ci baccalauréat bi ñu génn nemeeku nañ bu baax baax li nga xamte moo di résultat yi wadd mu mel ne nag résultat yi tiital nañu bëri ndax résultat yi ba jàng mi daan jaar yoon dëgg-dëgg donte sax gëj ne jàng yi euh, jàng gëj ne jaar yoon euh, ci système éducatif bu Sénégal bu ñu nemmee ko waaye bu ñu xoolee ne at yu wees nga xamante ni yenn mouvement yi perturbation yi dëgg demewul noonu sax résultat yi daawul demee noonu tey ñu gis ñu nekk ci jamonoy mbas ñi ñi doon wax année blanche dina amam du am njàng mi dana àggam du àgg euh, lu nekk di di euh, commentaire yi partout chacun yi euh, def sa commentaire ci loolu te ñu gis résultat yi fës lool te ñu wax taux de réussite bi jégg dayo ñu xoolee ci d'après li nga xam ne moo di ñu waddaguñu donte amaguñ le baromètre total wala bokk na tukaay bi nga xam ne mooy wane ne def nañ bilan ci njàng beeg résultat final yi mais lu ci mën di am mooy li ñu gis ci yenn gox goxaat yi yi wadd biral na ne résultat baccalauréat yi kon baax na waaw résultat yoo xam ne njàng moo dese naa baax daanaka perturbation yu bëri na feebar bi ñëw école yi tëjoon ay diir ay bés tëj tëj nangam sàngam lan loolu lan lan lay firndeel est-ce que du jox xel ne xëy na dañu bëgg a noppaloo nit ñi wala wane ne force la woon kon xale yi jàng donte sax man waxoon naa ne jàng moom xale yi ak alaa kulli àll dañoo war a dem jàng ji école. ak feebar ak lépp waruñu mën a tere jàng ji nañu maytu ndax bu jàngut ci kër yi leneen la ñuy def ñu dem place wala ñuy taxawal yeneen ñu kenn xamul mais tamit bu ñu xoolee ne wax dëgg fa yàlla jàng bi ni mu waroon a demee demewu ko résultat yi demee nii xel day tey te résultat yi war nañ cee bàyyi xel baax def ci jàngat euh, def ci ay études yu profonde yoo xam dina mën a tax ñu xam dëgg-dëgg ban impact la nar a am ak it ndax ñu jàng tey jii dinañ leen gën a mën a bàyyi xel parce que bu ñu xoolee am na seen naataango yoo xam ne gis nañ les diplômés euh, les les nouveaux bacheliers yi orienté wutoon les bacheliers non orienté gis nañ euh, seen mouvement d'humeur yi ñuy yëkkati saa su nekk. ak ñi ne woon ci école de formation yi privé yi état ubbi woon yóbbu leen fa ba léegi euh, coow laa ngi ni bay am ci ñoo xam ne fa lañ jaare euh, bàyyi jàng est-ce que tamit baccalauréat bi du nekk it sacrifice ci ñenn ñu bàyyi leen rek ñu dem seen yoon parce que Sénégal xam ne dañoo jàng ba am bac ñëw leen leen ñu dem euh, a xoolaat suñu système éducatif ñu bañ a xool rek ne dañoo war a sauver année bi rek ba ñu sauver njàng mi ni ñuy sauver njàng mi ba ñu sauver année parce que on peut sauver l'année ne sans pour autant sauver euh, l' éducation bi nag mooy njàngin mi na nekk njàngin mu am qualité mu jaar yoon boo xamante ni dina am njeexantal ci ki koy def am njeexantal ci réew mi parce que aucun pays ne peut euh, développer sans pour autant quand mu régler son système éducatif mu am euh, une éducation de qualité de haut niveau boo xam ne dina ko mën a relever les défis yi nga xam ne moom lay def moom la faire face ak li nga xam ne moom moo di ay perspectives yi war am ak yi mu war a je pense c'est important